asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidil awalina wal axirina sayidina muhammad salallahu taala alayhi kon mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonte bi ñi ngi teesiwaat eh, fii ci jotaay bi ñu baaxoo amal ci waxtu wi muy soxna soxna yi muqaddimatul xidma yi nga xam ne nii ñoo féeteeg ndaw te liggéey bi nga xam ni moom lañ daan amal at mu jot tey yi ñu ñëwaat di eggale seenub liggéey di ko jokkale ci jëri ci jawlin yi ñu ko an jaar ah, muy soxna yi nga xam ni ñoo gën a féeteeg ndaw te indi seenub liggéey jëmale ko ci kilifa yi Moukhaddamatoul Khidma kilifa yi nag kiñ ci ki ci teew te teewal kilifa yëpp muy sëñ falu Mbacké buñ ko tuddee yóbbaale na ñëpp te mu jiite organisation ak li ci aju yëpp mu ngi mel ne eh, te ñi ànd moom liggéey bi ñëpp teew nañ bu ci tuddee ku ci mel ne sëñ Modou Mbacké sëñ Cheikh bu Bousso sëñ Falloum Yaa Assou Ndiaye Cheikh Abdou Lahad Bousso ak sëñ Mori Thiam ak ñoom Baye Sall ñang ñoom ñëpp teew nañ yóbbaale ñëpp kon sëñ bi soxna yi nee nañ lii xam ne nii moom lañ def. seen asaka yéene rek la ndax nee nañ bu ñu sañoon lépp loo xam ne nii dañ koy xewloo jumaa ji ñoom la war ba tax na lii ñu def nee na tuuti la seen yéene nee nañ ñu ngi leen di ñaan nga ñaanal leen ba seen pas-pas ak seen yéene ak seen man-man ëpp lii te xam nañ ne jumaa ji liñ fi def mooy ñaq ak ñuqi ñaq gi ñu ngi seen kemt lay kàttan sëñ bi seere na ko gis gis na leen bu ngeen xëyee ba nageen ni yéen a ngi fi ñoq gi tamit ku ne xam ne ne ay gone yu jigéen lañ ñii dañoo toll ci jàng ñii am ay boroom kër ñii amaguñ ko waaye teewut ña ngay dajale seenub déem ak seenub daqaar xam ne lañu am sëñ tubaa am na ca wàll te sax moo leen ko jox lépp li ñu am sax lépp sëñ tubaa ko moom moo tax ñu dajale mu néew mu bari lii nga xam ne moo leen fi dajale bëgg ñu dugal leen ko ci liggéey bi mu fekke lañ lañ defoon daaw defu ko daaw jékk kon sëñ bi maa ngi ñaan nga ñaanal soxna yii nga xam ne nii man mii kenn laa ci ñoom ñu jox ma seen kàddu nii seen pëseef ak seen yéene e, ci jumaa ji duma la ko seet sax xam nga ko ndax waxtu wu nekk yaa ngi làmbu yaa ngi seet yaa ngi xool yaa ngi gis kon xam nga seen yéene ci ci liggéey bi ak ci lépp ak ci bépp yëngatu boo xam ne ñu ngi ci yëngatu buñ sañoon kenn du dem di des leen ay jigéen nañ ay jigéen lag ay jigéen nag lañ waaye ay jàmbaar lañ ñoo am pëseef lañ kon daal sëñ bi loo leen ñaanal doyut ñaanal leen bu baax suñ boroom musal leen ci ndox yi ak ci pakk yi ba lépp luñ mënoon daaw bu nee ñu mën lu ko raw jë sëñ bi nee na mm, mi ngi leen sant bu baax jir jëf kon damay jox sëñ bi mu sànn ci ay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ si di nuyu ci turu sëñ Afe Bousso mi nga xam ne mooy kilifa ak daayira mu xadamatul xidma di ñaanal borom liggéey bi Seexul Muntaxa mi nga xam ne doog jox seen xaddim suñu ba yàgg ko ak wér di leen sant ci bu baax a baax ci seen taxawaay yéen ñi nga xam ne ay ndaw jigéen ngeen di ne ci biir liggéey mu xadamatul xidma bii doon ay membre yi mu xadamatul xidma yoo xam ne yu am pastef ngeen doon ay ndaw toll ci jàng lu ci ëpp ci yéen ñenn nañ ci tam di doog dugg néegu sëy waaye loolu lépp terewul ngeen xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa moom bi nga amee kattan la gën a yay kon nag ndokk bi ngeen ko xamee ndax jëf moom ci ba ngeen am kattan kon na ñoo ngi ñaas boon dolli ak wér ci yéen ba kenn ku ci yéen li bëgg a jëf mu mën koo jëfee sagoom ndax xam nañu ne amuleen amuleen waxtu amuleen bis saa bu leen bi rek ngeen jug bàyyi seen i kon nag ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci turu Sëñ Afiya ak mboolem waa Moukhaddamatoul Khidma gépp nga xam ne ñoo la bokkal ñu taxaw liggéey bi waaye itam di ko ci turu Sëñ nga xam moo fi nekk Sëñ Tuubaa di ko ñaan mu yàgg fi te wér ñu ngi leen soññ itam ci kanam itam nag ngeen gën cee góorgóorlu ànd ceeg yitte ak pas-pas ju mat yi nga xam ne. moom ngeen doon doxee ndax a jekk ndax ku leen gis ku ne xam ne seen doxin wi doxin wu sell la ndax bu ngeen nekk jumaa ji du ngeen am jënn jënn yitte du ngeen du ngeen kaf du ngeen ree du ngeen def la lu nuru moorante ngir lan ngir xam ne barab bi barab bu war ma la ku ñëw ci yéen col gi ko diine digal moom lay def col gu muy colu jigéen gu yiw col gu mat muraay gu mat waaye tam néewal kàddu gi eh, ba nga xam tam daanaka fi ne ku ngeen jegewul sax mën naa bañ a xam la ngeen def waaye tam nag néewal ab joxaso ak góor ñi tam ndax xam ngeen ne ay ndaw moom fu ñu daje bu ne doon ay góor ak jigéen waaye yéen moom suñu borom dafa leen feex ba du ngeen soxla woo sax di gis jën jënn góor kon na ñu leen sant bu baax ci loolu di leen soññ tam ne di ñaan suñu borom dimbale leen ci ba yoon wi ngeen jaar suñu gën leen kàttandal ba ngeen gën cee mën a sax ndax pakk yi bëri na ca saytaane bëri pexe itam waaye tam da ngeen xam yoon wi ngeen jaar daal bu ngeen ko wàccut da ngeen àgg fa ngeen jëm ci dara du ngeen dog ndax su ngeen ko su ngeen jàpp ni ngeen jàppoo rek saytaane du mën ci yéen dara ndax saytaane li mu gën a bëgg li gën a bëgg mooy ndaw li ndaw li liggéeyal yàlla la fës la am la gën a am yéene ci yàqal ko ndax xam na ne su ko yàqalee rek mën naa yàq lu bëree bëri ca ndaw moom lu ko lu ko lu ko lu ko fëkk dafa yomb waaye alhamdulilah a ngeen muccee ci yooyu kon nañ ñu ngi ñaanal ngeen ngeen cee mucc rek bu baax a baax di leen sant ci seen i pas-pas yi nga am ngeen ko dem ba indi addi yi koor gi ndax seen liggéey bi ngeen def rek na sëkk waxtu wu ne ndax bis set yéen a ngi ñëw ci nettoyé jumaa ji di raxas bagages yi boole kook dem di fi defar yi ñuy xéwloo mu dem ci diggante mburu ak beñe ak petit pain yeeg yi ñuy xéwloo daal. pissa yeeg yi bés bés yi xam ne bés bés xam nañ ko bu baax a baax euh, ndax Cheikh Adou Bousso moom xam naa ko ponk peewal la moom moom gën a xam sax mi ngi may fàttali mi ngi may fàttali croissant yooyu kon yooyu yëpp ngeen ngeen bu seet ngeen ñëw yéen a koy defar waaye itam du ngeen soxla woo dara itam ba su ba koy jox nit ñi bu nit ñi bu ca nit ñi nëppul du ngeen du ngeen du ngeen ca du ngeen da ngeen ko ci du ngeen ci du ngeen mos loolu lépp nag pas-pas képp la waaye nag ki koy jëfal lépp loo xam ne yaa koy jëfal lu gën a sell rek moo ci gën si addiya ji nag loolu pas kon nag yàlla na leen ko suñ Tuubaa nangul moom xam tax ngeen jëf ko dana defal tam ci liggéey koor ñaan suñu borom nangu leen ko ñu fekk at yu bëree bëree ci yéen ñëpp kenn ku ci la am ci ñaa gën a li gën a gàtt mooy yéen ñiy jëf kenn ku ci yéen sa ci biir jëf ji na li mu ci bëgg rek te xam ne incha allah rabbi boo ko fasee rek borom liggéey bi borom bari bi Seexul Xadiim moom mooy ki nga xam ne dañ leen gàttandu ndax jumaam ji képp fu sa tànk dana ko yëg dana la gis kon nag eh, yéen na seen na seen pas-pas dëgër ci sell rek su ko defee rek lépp loo xam ne bëgg ngeen ko da am loolee. ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا